salaamaaleykum mbokk internet yu Sen Teranga TV kontaan ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun alors xam ngeen nag démb ki nga xamante ni moom mooy Lac de Guiers démb fële ca euh, tribunal bu bu bu Géejawaay ginnaaw ba mu amee retour de parquet retour de parquet si jeudi bi démb la doon jàkkaarloo ki nga xamante moom mooy euh, moom mooy euh, juge bi euh, ñu daal di koy daaj yóbbu ko li nga xamante ni moom mooy mandat dépôt démb mandat dépôt ki nga xamante ni moom mooy Lac de Guiers nañ ko également ci guddi gi la mujj la fanaan bu njëkk fi nga xamante ni moom mooy prison bu rëbës réaction yi nag bëri na trop tax ñu bëgg jël ñi nga xamante ni seen xam-xam dafa màcc jëm ci làmb mais également bokk ci li nga xamante ni moom mooy askanu làmb du ñàkk ci kanam mën nañu dégg dégganteek nga xamante ni moom mooy buur géwal mais en attendant ñuy dégganteek euh, buur géwal dañuy jéem a euh, joindre ki nga xamante ni euh, moom mooy père Doudou Ndiaye père Doudou Diagne Père Doudou Diagne nag ñëpp xam ko ci li nga xamante ni moom mooy làmb ji nekkoon fi président des amateurs de la lutte sénégalaise alors moom la ñuy jël ni en direct waxtaan waxtaanam un peu ci ban appréciation la ci am seen en attendant voilà muy ñëw ñu ngi leen nuyu voilà. voilà le le temps bu mu nee euh, le temps que nga ñu regle aspect technique bi de vite fait rek euh, seen bu mu gaawee dina baax comme ça ñu dugal ki nga xamante ne moom mooy Doudou Ndiaye Diecko di leen fàttali moom xam-xam màcc na jëm ci làmb liggéey na lu am solo ci réew mi ci làmb euh, ñiy jooy xaritam bi nga xamante ni moom mooy Gaston Mbengue euh, yàggul dara euh, tey ñu amaat beneen mbir bu dal ci askanu làmb di Lac de Guiers mu war ci wax xalaatam ci lu gàtt rek nga xam nañ ni temps bi dafa xaw a dafa xaw a précieux si moom bëri na loo xamante ni daf koy liggéey mais dañuy profité rek ci occasion bi jël tuuti si temps rek donc voilà seen si c'est bon le temps ñu koy dugal te pour am voilà alors euh, voilà ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay nuyu père. Euh, en fait mbir mi nag comme niñ ko déggandoo woon démb nga xamante ni moom mooy Lac de Guiers ginnaaw bi ko procureur dégloo gis nañu dañu ko yóbbu mandat dépôt ban appréciation nga ci am. ah xanaa rek métti métti parce que nit moom kaso. Hmm. kenn yéenewu ko kaso te it muy moom muy keneen fa nekk sax kenn yéenewu leen ko. Mhm. suñu borom mooy dogal mooy jaar mooy dogal si jaar jaar doomu aadama. métti mhm. mhm. naa ne ku si nekk bu xaalis la bu doon tey ku nekk war nga mën a joxe dara. pour mu jéem nit ñi dañ ko def. comme nag euh, ah ñaan yàlla rek. fekk fekk semaine bi làmb daje ñëpp daje rek pour ñu ut xaalis la pare ñaar la. wut mm-hmm. ay solution jéem a wut xaalis rek fay. Mm-hmm. ñi xam ne ñoom la seqal pour yàlla def mu dellu ay njabootam. Mm-hmm. aussi il faut ñëpp taxaw si. même bu dee dañ koy jox combat tamit promoteur yi génne avance ñu xool ni ñu koy réglé rek def ko te moo gën parce que aussi nit ku ne say nit ñoo la mën a jàppale say nit ñoo la mën a dimbali. mais est-ce que nekkul woon xëy na donte ndogal la lu ñu mënoon a éviter parce que xam ñu faral di gis mbëri souvent bu ñu leen mayee visa léeg-léeg dañ ciy yóbbaale ak seen xarit yi léeg dañ ciy lëkkaloog ñi nga xam ne. waaw loolu mënut a ñàkk mooy loolu mënut a moom mhm. moom mais erreur bu amee tamit xam nga des fois aussi. ngir man sax bi may wax nit ki boo amee ku lay ko ko yoral xaaj ko wuy téléphone boo amul nga ne ko aw ma mais fekkee doo wuyu téléphone dana yóbbu police wala mu yóbbu gendarmerie boobaa di nga wax ak moom par force. Hmm. donc yooyu yëpp te am si nit ñi quoi mais li am solo daal mooy fu mu toll nii ñaanal ko yàlla rek ñëpp jàpp si ba yàlla jëlee ko fu mu ne. Hmm. que lii am am na ba pare waroon na am wala am woon wala tax mu am man yooyu du ma si wax ay détails mais daal la may ñaan yàlla lëndëm bi mu ne. suñu borom génnee ko si mhm. mhm. euh, bon forcément bu bu mbir amee dina am ay conséquence parce que comme turu lamb lañ ciy tudd te moom acteur lamb la conséquence yi muy am muy mbir yi nga xamante ni xëy na ëllëg war nañu génn ak ñeneen ñi nga xam ñoo leen entouré woon nañu génn est-ce que lu ci indi ay ay conséquences yu négatives. Ah, waaw kooku nag ça dépend si mhm. na am problème bi mën naa bëgg a àgg fa parce souvent gis nañ fi ay nit. ñu ngi tukki souvent kayit moom bu leeree boo amee sa invitation mu leer kay di nga tukki. Mhm. même bu même bu dul làmb ji ñaata musiciens yi ngay am problème yooyu. Mhm. ba seen nit ñi euh, terewul ñu ngi tukki. donc mhm. affaire bi affaire ku nekk daal sa solution yow la yow la concerne. waaw moom moom moom la concerne du yàqal keneen. waaw du yàqal keneen. Mhm. mais mais mais est-ce que jàpp nga ne taxawaay bi war depuis bi coow li amee ba léegi taxawaayu askanu làmb nan làmb ji benn bopp lañ ak yooyu est-ce que gis nga ci jàppale si askanu làmb jëm si moom. waaw mais ça n'est pas parce tey am na ñoo xam ne seq na ko ñoom dem nañu seet ko wala dem nañu ut ay solution ñu am. Mhm. ku nekk aussi yaa xam ne ngay tojee sa bopp te ndax ku nekk aussi solution bi nga mën a def pour mu génn wala pour mu pexe parce que am na ñuy joxe xaalis am na ñoo xam ne xëy na xaalis bi matul. Mhm. am na ñoo xam ne tamit dem nañ ñaan pour crève am ñoo xam ne tamit seeti nañ ñi nga xam ne ñoom la ameel pour ñaan leen. bu mhm. ñu tekki seen tànk retiré seen plainte. Mhm. yooyu yëpp am na ñu ko def mais ku nekk nag solution bi nga mën a def moom nga def. ñi war a ñaan ñaan nañu ñi war a waxtaan ak ñi nga xam ne ñooy plaignants yi waxtaan nañu seet ku nekk ak ak solution bi ngay defee. Hmm. mais gis nañu ah, gis nañu Sadio Mané également jëkk ci dix millions ñenn ñi ni promoteurs yi ñoo waroon na xëy na cotiser jàppale ko. non loolu moom cotisation promoteur yi moom da leen neex rek. Hmm. da leen neex ñu def ko neexu leen ñu ko xam nga nit ki moom sa xol la rek yaay ko mën dimbalee dimbali ko. Hmm. mais li am solo li nga xam na tey promoteur man laa daan gis mbër am problème nga dimbali ko. mooy nga jox ko combat jox ko si avance mu régler problème am après mu bëri. waaw solution yi pour mu tey tey bon. waaw ah, mais boo xam ne neex na ko mën na ko def. waaw mais diñ koy tuumaal bu dee loolu la nekk si tuuma la ñu toll jamono bi jugé guñ ko xaalis bi eh, bu dee dañ ko jox avant est-ce dina mën dara parce que on parle de cinquante trois millions ñu naan vingt millions ak yooyu. waaw même mu munti doon rek bu ñu yàlla defee bu mun ko fay ñu fay ko après li des nag juge bi moo koy jiital. Mhm. jiital la rek parce que système bi geste bi mooy mais bu dee plainte yaay jot nañ seen du ñu daaneel te cofuñu ci wàllu euh, couronne bi roi des arènes bi ñenn ñi gis ni Aziz Ndiaye dafa def benn vidéo ni moom dafa bëgg a organiser wala sax combat Balla Gaye nga xamante ni mooy tafaatin benn benn maanaam trophée boo xamante ni empereur la tudd maanaam roi des arènes kooku moo koy dépassé ñenn ñi jàpp ni loolu rafetul manque de respect la ci Modou Lo yooyu ban gis-gis nga ci am. mais loolu xam nga tey roi des arènes CNG moo ko moom CNG mooy ki nga xam ne moo ko war a organiser lu mu ci am tey CNG moo yor lool mhm. Tyson Manga 2 moo ko yoroon yàlla dogal Manga daanu Tyson daan ko. Mhm. ñu ne Tyson yaay roi noonu la demee woon. seen loolu seen yàgg naa ko CNG du ñu dañ si tardé bi Manga defee jubilé. Mhm. bañ ñëwaat si làmb. moom la ñu waroon jël titre bi. Hmm. tegaat ko ku ko daan nekk droit des arènes mais loolu defuñu ko donc loolu nag moo indi coow li ba hmm. waaw loolu ñàkk organisation CNG la woon. loolu moo taral parce que yéen presse bi yéen a créé roi des arènes parce que maa nga daanu na en tant que roi des arènes léegi ñëpp dañuy wax ne roi des arènes amatul loolu mais est-ce que logique pour logique jàpp nga ne lu yenn maanaa la jékki-jékki rek jóge fee nii da ngay organiser empereur. ku daan mu est-ce na quoi. est-ce na daal est-ce que logique na Modou Lo nekk fii nga bëgg a organiser beneen roi des arènes. ko noonu. Hmm. parce pour le moment man wax naa ko ba sonn ma ne pour le moment Modou mu ngi wàññi nekk na ko. Yékini nekk na ko. moom la yàlla dogal mu jël couronne bi Eumeu Sène nekk na ko kon nañ ko ko nangul rek. voilà. Mhm. oui en tout kontaan nañ ci waxtaan bi ak sa temps bi ñuy jël. ñu jërëjëf alors euh, ñu seqoon ak waxtaan nga xamante ni moom mooy euh, Doudou Ndiaye Diecko euh, xam ngeen ni moom nekkoon na fi président ci li nga xamante ni mooy amateurs yi lamb yi xam-xamam màcc jëm ci wàllu lamb maîtriser ko trop doon wax ci fee diggante nga xamante ni moom mooy Lac de Guiers bi ñu yóbbu mandaa dépôt démb mu fanaan guddee bu njëkk fi nga xamante ni moom mooy rëbës donc taxawaay ban la ci askanu lamb am looloo waraloon waxtaan bi ak woote bi mais également ci li nga xamante ni moom mooy Aziz Ndiaye bi bëgg a benn empereur <laughs> de l'arène arènes loo xamante ni xaw na bizarre quand même ndax am nañ fi roi des arènes nga bëgg créer beneen roi des arènes donc ñenn ñi jàpp ni boo dafa soxore Modou roi des arènes bi moom ñenn ñi jàpp ni c'est pas élégant ñenn ñi jàpp ni euh, nga xamante moom mooy CNG ñoo si war a jël ay matukaay mu nekkoon seen ci réalisation bi usin ci présentation bi du ñàkk ci kanam dinañ jël yeneen réaction ndax nag euh, Lac de Guiers nag euh, ci askanu làmb la bokk te forcément ñi nga xam ne ñoo yëngu ci wàllu làmb bëgg nañu indi ci seen xalaat